son ses avoirs sur la fiscalité est un État qui limité. parce que fiscalité dafa am terme. donc non seulement État dafa war a am portefeuille moom ci boppam. mais dafa war a dimbale entreprise yi. pour que ñu euh, ñu gën a màgg. mais il faut qu'on fasse attention dimbale entreprise c'est pas comme ni ko journalistes yi euh, waxuma journalistes yi plutôt les les les les entreprises de presse le disent la remise gracieuse de d'impôt ça c'est très dangereux et ça relève du domaine de la loi le président de la République n'a pas le pouvoir d'enlever un centime d'impôt amul décret bu ko mën a l'impôt c'est la loi mhm. le code général des impôts moo wax maintenant dañu lister un certain nombre d'entreprises yoo xam ne mun nañ bénéficier de remises ou de euh, ou de différés et cetera et cetera mm-hmm. li li li li état bi war a def mooy jox leen les moyen les véritables moyens de fair de l'éducation à la citoyenneté et en ouais. contrepartie ngeen di am tous les toute publicité waratul am RTS eh warutu waxuma kese de waru fa am mm-hmm. parce que ñoom ils reçoivent l'argent du public doy na doy na sëkk. d'accord merci ñu jox leen publicité bi yëpp. Eh oui. après ngeen di def éducation à la citoyenneté comme ça sénégalais yi bàyyi saaga.